thank you sama xol bi lay yegg si yii. nee naa la maa ngi wax caat man de may wax dëgg dëgg bëgg naa yow yaa bëri problème bi boobu. xam nga ne maire bi yaa jaatam nag mais am na maa tee la. laaj oh. bi lan la. lan la yow boo toogoon ba fajar. Mm. dégg ñu ne weer bi feeñ na. Mm. boo xëyee da ngay war wala da lekk. muy dox di wóor. loo xam ne nii julli moo ko naafiloo. damay añ ba suur. réer ba suur. toog jàkkaarloog sama télé di seetaan. jàngal nga bañ du yoon soo xëyee da ngaa war a woor. Hmm. waaw jour boobu boo xëyee da nga war a woor bu koor gi demee nag ba jeex da nga koy fayaat parce que guddi gi nga doon tëdd yéene woo ko woon fas yéene woo ko woon moo tax boo xëy eh, da nga ko war a fayaat. baax na doy na yow jàngoo ba pare bu ñu lay wax ngay nangu di bañ a doo dee. dëgg la mbirum koor moom d'accord baax na. foofu da ngay caaxaan du comprendre. comprendre xam naa ne wax ci moom doxam bi bari na trop. maa ngi ko day lijjanti ah, bu toogee tamit dara lu baax ah dafa war a lijjanti yow yaa ngi ni ma toog. gis nga changement bi tënk. yaa ngi seetlu ne wala min ko fi nekkoon. sama yaay nga xam ne changé na kenn xamul lan nga nekk ko indi yow. maaleykum salaam. xale yéen a ngi toog. ñooñu toog waa ni yaay. ah nii de baax na ci moom. ah di jaay sañ-sañ nga. sañ-sañ nga de ku la tàng rek. ah mën na nag. tàng rek moo tax ma koy def yu gàtt yi. <laughs> moo tax it sant nga moom. waaw waaye nag li ñu leen def nii kontaan naa si de. Hmm. gis na weeru koor boo toogee. Hmm. bul jëw bul wax lu sa yoon nekkul. Hmm. ndax loolu la diina bëgg. lislaam bëgg. nii moom bu ngeen ko defee. 100 pour cent ngeen di am. allah waaw kontaan naa si yéen trop. waaw yow sax yàlla la indi. waaw. dañ ko duggee ba léegi gis nga sama comportement yaay ni mu mel. waaw changé la def carrément kenn xàmmeetu ko sama yaay toogutu yendalutu fanaanalutu mm. sa bët moo la may du yaa ngi koy gis ni mu mel. xàmmeetuma ko suñu yaay sama yaay mu daawul def rek léegi da koy def balaa wax ji di sa bàyyi. dafa ñu am solo ne damaa bëgg la taaw bu nekkee si kër cib su kër ga lay lëm. damay woote. man man man nii la gis nga man nii laa nekkee woon sama baay. waaw. moom boo am lay moo tax ñu naan taaw njëkk a njëkk a baax. kay. ku woote. bu beneen yoon ne booy woote da ngay wax ma wuy si ma kilifa boo koy woo da nga koy joxub cër dégg nga li ma wax. kay gaaw leen dama yàkkamti ndax damay dem aw ma sama woote bi du leen ni yaay du jaaxle. mënul mhm. sax taxoo may wax yow boo fi nekk ñàkk ne bu tey man maa ko wax. sama yaay gis nga toogatul yenn la na fanaan la tul lépp ndax moom ñuy toog sa mbaxal bu gudd yaa ngi sama yaay changé na xàmmeetuma sama yaay lu musul def lay def te lu def lay def yaa ci teg sa bët yaa ci teg sa bët yaa ci teg sa bët. maa tey waaw du yaa ngi dégg mhm. léegi nag il faut que ñu am solution parce que lii moom ni yaay du tayee. li moom sama yaay nag tayu ko. lii moom du tayee. Ndiaye nga baal ma sax wante taw moom li mu wax tey dëgg la. papa li mu wax dëgg la papa li nga def suñu yaay man dara moo ma ci nekkul te yow man dama laa bëgg ñun bañ a ñu nga wax ak moom sax mais nga woo ko si biir néeg bi parce que ñun tamit ay nawleem lañ ay doomam lañ lu rafet tamit dafa rafet defar. sa yaay li ma koy tere bu ko bàyyee du ma ko def dara kër gi kër la koo xamante ah dafa kër dafa war a am sutura waaye ku dugg génn sa morom dugg ku war a dugg fii yëpp dañ koo toog di wax ay yoo xam seen yoon nekku ci ci weer bi nga xamante ne weeru yàlla la du amee ci kër gi du ma ko seetaan. eh eh, eh Moustapha eh na doy. kon gis nga li kon ma ne dama ne na doy. xamee woo ma xanaa. am kay bii takku may gis nga xale yi li ñu wax dëgg la ndax premier jour bi ngeen ñëwee maa ngi si teg sa bët sama bët bii laa si teg nga koy manipuler. ni comme pion. yaa ngi dégg. màgg nag maa lay laa ñoom ñoo bokk ndey ak baay muy sama ma lu ko wokk lu ne daf may xuri yaa ngi dégg. am na loo xamante ne nag war war war na laa jom mag nga i nekk fii di def sa ñàkk fayda yi sa yëf ñàkk fayda yi ma laaj la yow sab say mos naa jëlu da nga kaa sañ lan moo tax nga sama say man sama mag ngay denc waaye may ma jàmba sara sa sa mag maay kilifaam may laaj la ñaari mbir na nga tontu ma ci ndax man ama jataay bu may toog di wax ñàkk fayda yi man kilifa laa te sama kër maa koy gérer nu ma neexee ba nga ci toobalee mos nan laa fin man kenn sañu maa wax kenn sañu ma wax maa la wax feeb wax ma fi see man doo ma doo ma xam nga ma doo ma wax Moustapha sama kone Moustapha sama kone léegi leen rek day lii dama leen ma ni merde Moustapha ba ko xoolal ma tàkk sa kaw ma tàkk sa kaw Moustapha cat cat cat laas laas rek laas rek deesal na ko rey. may ma rek caat may ma. poñe woo da ngaa xoj de poñe woo da ngaa xoj boo ñëwee. boo ñëwee poñe.